wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu ñepp di santat yalla sunu borom bu baax ci tawfiq gi ñu defal dañu téwé jotaayu alquran di ñaan sunu borom yalla nako ko boole ci jataay yi mu gëreem ma ngi ndokkel sa mbop di ndokkel bokk yépp di yëkëti kaddu yu gatt incha allah ci loolu sëriñ Seexuna Mbakke mi ne ci kanamu njabootu Seex Muhammad Dam waaye ci turu sëñ Moustapha Mbakke mi nga xam ne moo nekk ci kanam njabootu sëñ Fàllu Mbakke Jumada ànd ak rakkam sëñ Abdul Xaadir ak sëñ Saalihu Mbakke mi nga xam ne ñoo ànd bi may ñëw muy sama rakk di sant bu baax serigne abdullahi Diouf ci jëfam ju rafet ji mu jëf té mu mënon ko ci baña fekk waaye mom ablay bu jëlé bis bi né tudde nako ko fallu ko xam ablay xam serigne Fàllu danga nana ah loolu la gharwa kon serigne abdullahi ñing lay sant bu baax ci jëf ju rafet ji sëñ Fallou fa nekk jàpp naa ne lii luy dolli aw yiwam lay doon fa nekk ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dolli njégal ak yërmande te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla sunu borom mottili ay yéeneem ci moom ci ñoom njaboot gi lépp lu mu yéene woon ci lu baax rek yàlla na yàlla dëgëral njaboot gi lañ mën a mottali lépp ak seen yéene bopp ñoom ni di sama mbokk sëñ daal yëpp nga xam ne maa ngi leen di fekk ci jataay bi ak ñi ma fekk ñëpp di nuyu dëkk bi waa dëkk bi kilifa yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare xam naa li ñuy faral di def muy tudde bis eh, lu baax la ci suñ ko xamee xam jubluwaay ba ndax ba Ablaay tuddee sëñ fàllu bis bi xaj na ñun mën nañu wax li waral loola wala boog mën nañ cee wax dara ndax mbokk yi na ngeen xam ne sëñ Fallou Jumaada nit ku am solo la nit ku jàmbaare la ku bàyyi ay jeexit la ci fii mu ne woon waxuma jeexiti àdduna waaye jeexiti diine li ñuy séentu ci ab sëriñ nga xam ne sëñ bi kat bu fi génn bu fi bàyyi ko lañ jàpp ne mooy war a nekk ndonam loolu sëñ Fallou bàyyi na ko fi muy diine. ci ndono yooyee bokk na ci ay daara yoo xam ne bàyyi na ko fi daara yoo xam ne ay mboolay mbooloo ñoo fa mokkale man mi kenn laa ca ñooña dinaa ci ñëw léegi waaye bàyyi fi ndono it. ño xam mo len defar day mbolo mbolo mbolo si abdullah mi manaka ja tuddu waye bay fi ay bereb yo xam ñaari juma yu mag yo xam mom moom ci bopam moko tabaxal bopam def ko ci yoonu l'islam muy fe mu nek darul qadim ak ci daru mbake ak yenen ak yenen yo xam ndonal la ndonal lo xamni ne da ko muy nek law di fek fam teud bal fek loola loola nga fiy nekk ñu bari Sëñ Fàllu lañ ko xamee mooy waxtaan su daan waxtaan ci diine dangaa ñu bari ci ñi ko xam ci loolu lañ ko xam waaye Sëñ Fàllu nag lim doon wax lim doon jëfa ko ëpp lim doon wax lim doon jëfa ko xam ne jumaada gi ñu koy askanele jumaada jumaada Sëñ Fàllu ba mu fay dem ñi xamoon sëñ fàllu ñëpp dañoon du fa toog ah ñi xam laa li may wax nii ñi ko xam sëñ fàllu ba muy dem jumaada dañ ne woon du toog ngir na booba sëñ fàllu mi ngi tuubaa bari bi yëngu yëngu ba xam ne te yëngu ba di dellu ci diine ndax yoroon na fa école yoo xam ne bari na ci ñi ñu tudd ci réew mi ñoo xam ñi ci bari jaar nañ ci loxo sëñ fàllu ñu bare bare bare ñu bare bare bare am na ñoo xam léeg-léeg su doo xam ñooy jekk rek ma ne Sëñ jàngal na ma fan yee rek am na ci sëñ boo xam nii bi mu ne ma Sëñ Fallu jàngal na ma dama na te kooku moom jàpp naa ne moom ak Sëñ Fallu mi ngi dëkk Ndaamaatu ñu koy wax sëñ eh, subhanallah góor gi daal dama ba ma gisee man moom dama naan ba mu ne ma Sëñ doon na ma jàngal damaa yëm ci yàlla xañ ne balaa wax ci kii ma danaa fàttaliku turi moo ko tuddee ñu bari nañ ko xam am na ko Abdourahmane Fall moom it dama si Fall moo jangal li wax riyadiyat si mom la ko jangé ñu bëree bëri ci ñoo xam ni ñi ngi yëngu ci walu xam-xam jaan ci doxé seigne Fall mom yëngum boobu nak kérok bi amé ndigal na ko demal ci tolé ya barki dembo moy semaine bi jall dañ ko doon faat dañ ko doon defal ñaan ci jumaada mané len seigne Sëñ Fall bi mi ñëw jumaada amutul am néeg am néeg néeg yalla xam ne ñëw na bu jumaada ñëw soka wa dëgg ba jàppale ko ñu tak néeg néeg moo wa waa këram ak i dongaam mu mana a bàyyi tuubaag la fa nekk lépp ci ay noflay mën dem ci all ba ci ak tumaranke te booba fekk na mu jang ba li ay jàng am ba am bourse Arabie saoudi may nañ ko bourse ba seigne Fallu war dem Arabie saoudi pour jang keroog bi mu wax ko waajuram mo mo ko nekk da wax ni keroog ba mako ko seigne bi seigne bi mu xoolee bourse bi da koy jël diko dagat sama kanam daga daggat ba mu àgg mu sànni ko daal ma man defloo ma li ma bëgg moy nga dem feulé yaral ma sama njaboot gii loolu laa bëgg sama li ma bëgg mooy sama sama njaboot gii nga yaral ma leen jàngal ma leen yaral ma leen soo ko defee doo rëcc ci doo ñee ku jaagoon Arabie Saoudite ba ñëwaat doo ko ñee loolu daal waaye ku xam si Fallou xam ne ñeewul keneen ko jàngee feneen jumaada googee nag en tant que ñun sëñ daara yi mooy wax ne tuddee bis ko war a def mooy jumaada sëñ Fallou ku mën a yar wallahi bokk julli li may wax ni ñaanu ma yàlla wax ci dara lu dul dëgg Sëñ Fallu ku mën a yar la su ma ne ku mën a yar la du ma dama ko joxe exemple sama man man bi may dem jumaada booba maa ngi toll xam naa fukki at ak e, juróom-ñaar te booba mokkal gu ma maanaam booba wàcc naa daara ja ma nekkoon la ma fa jëlee mooy ak doy waar xeex lool mënoon a xeex xam ngeen dongub Tuubaa rek dongub Tuubaa laa woon boo xam ne damaa demoon ba sëñ bi jàpp ne kii moom nguur si moom xam naa day sànku yàlla xam na ne bokki julli ba ma demee jumaada ci loxol sëñ Fallu ba ni ma mokkale alquran sëñ Fallu musta jël ab yar dóor ma musta am billahi wallahi alazim fàttaliwu bu ma si am fàttaliku ko sëñ Fallu jël ab jëmee si man musta am te léegi da ngay dem ba mujj te man fa may jógee mën naa ay duma ma fa may jëlee man ndax dañ maa duma ma daw dem kër dem dem ci sëñ ba ay duma ay duma ma jëlee ca daara ja ma daw dem kër sëñ ba sëñ bi dama toogal te la ma yóbbu jumaa la ci yéeme mooy sëñ Fallu ku doy gis nga fii nii boo toogee moom ku xam doom aadama la la may léej léej ak la doon doy doy waar ba nga ñëwee da nga keneen nit nga ca yéem la ci yéeme nga mooy yàlla xam na ne bokki julli li may wax ni yàlla mi ngi koy seere ba may mokkal alquran am naa lu war a mat at yàlla moo xam ne si fal bi may jàngal du ma tari ci ma sama bopp laay tari man maa ngi def si ma jógee ca tool ya maa ngi maanaam suñ suñu wàccee danaa ci ñëw léegi ci wàllu tool yi ci tënk wàccee ci laay a jàng damaa jàng di tari sa bopp jàng di tari sa bopp ba benn bis maa dem si man mokkal naa man nii laa mokkal alxuraan danaan léegi daa wax naan am na ñoo jàngal naa leen ñoo jàngal seen bopp ba tari seen bopp so ba mokkal te yàlla xam ne sama alxuraan foofu laa ko jëlee foofa laa bindee kaamil alxuraan ci ci loxoom moom sëñ Fallou mën a yar gi yëmul ci maanaam di wax ak yow en tant que nit moo tax suñ daare point bii bëggoon naa ñu taxaw ci si ngeen dóor dóor képp ko jàpp ne boo ko deful jàngale woo sa pédagogie ñëw tubaab bi tubaab pédagogie amoo ko yàlla xam na ne nit ki léeg-léeg ngay jëfandikoo ci moom xale bi fexeel ba mu rus la xale bi fexeel ba mu bëgg la xale bi na xam li nga ko bëggal loolu day tax ba moom day dem mu mujj boo fi nekkul it du dootu la dootu la xaar day xam li ko war man loolu ma doon Sëñ Fallu mooy daa ma mujj lijjanti ma Sëñ Fallu waaye li may lijjanti mooy ni def ba jàng ak ni ma def ba mokkal loolu nag Sëñ Daara bu ko jéem yàlla mën naa taw fexeel nga boo mënut am 100 pour cent it fitna yi ma mën naa wàññeeku beneen ba ci topp mooy daara ja bokki jullit daara ja daara Sëñ Fallu lu mat di waxtaane la mii xam na ci daara Sëñ Fallu maa ngi Ablaye mii ñu war daan nekk ca waar wa ak doomam mii Sëñ Moustapha da daan wax naan ku ku nekk sama cere ji ku nekk ci cere danga da dem tool daara ja amul ku sant Mbàkke amul ku sant keneen Ablaye mii xam ne maa moom ñoo daan wàccandoo ñoo daan ñoo daan xëy na ñoo da xëy dem ci tool jàpp ci machine yi ba wàcc soog a dem nga dem ca rat ga jàng sa bind. ba ma dee ba mokkal yi ñoom ñu xam nañ ko bu ñu wàccee ci lañ soog a jàng ñoom ñi ba ñu ba ñu nekk ba ma leen yor dañuy liggéey ba wàcc ñu soog dem ca rat ga. suñu wàccee da dañ gont jee buñ gontee ba wàcc ci lañ soog taal marax xam nañ ko ñoom ñi waaye la ma gënoon neex mooy loolu mooy daara ja amu fa ko sant Mbàkke wala ko sant ne suñ Fallu la daan daa fii laal moom ku ku ndékki ci tere jii sama waju di sama masar ñew tuba da man ma ya nga dem tol wallahi ñu da daa man del del dem ci tolé ya na ma nit ki su ngeen mbokk mu dak la jang du la nolo li tax ma bëgg ngeen mëna a liggéey nag boo ëllëgee bu leen giseen bu leen gis kenn ku leen defal ngeen ma defal seen bop waye bokki julli li lola di ab bis daf su am solo benen bi jees mooy defaru ga man da wax ne sun daara yi man ak yéen gars ngeen lol ci jàngale ak mokal waaye xool leen xoolee xale yi rek gis ngeen bu buñ mokkalee ni ñuy teelee goog gone ni ñuy teelee goog seetlu leen ni ñuy ni ñuy xawee dama yàlla digal mel lu xaw a yéen seen bopp tuuti ñàkk a defaru la waaye gis ne dem tool nii moo tax daara yi suñ daara bu war naa jéem a lijjanti ay tool yoo xam ne Ablaye mii de liberté yooyu mooy mu ta gis ci àdduna ko jaaxal moom sëñ bii nii maanaam tey sëñ Fallu liggéey bu rëy liggéey sëñ Ablaye mii si abdullahi mi seigne yahya Bousso moko ko jox sëñ Fallou sawaay mii nee nañ ba ñëw comme ni xale bi def déggutoon wolof bamiy ñëw tasaare si Abdoulahi déggutoon wolof fi ne boko la kon naafiyo mën naa am sax mu le du xam ko wax te fa la nekk ba mokkat alxuraanul karim ñu ko daan def nak dafa lon mom mi mana li aju ci walu jurga am ay nar lañ ko nak ya léeg-léeg da koy ree Ablaye ni nga gis seen tànk bi noonu la sawar macha allah bis bu nag yi réere ba nekk am ma daam ne ko Ablaye ana nag ya fu nag yi nekk si waay dina ko maanaam pour wane ne lépp lañ boole woon ni mu doon jàngee noonu lañ ko doon yare da ngay dem mu mujj sa xol bi day toj Ablaye jàpp naa ñii nii amul dara lu muy gànt ndax lan mooy da dem ba sa xol toj loolu Serigne Fallou moo ko def ci ñun kon moom mii su yàlla dogalee muy góor-góor ba ak si fii. ah wax dëgg yàlla daa daa siggil sëñ Fallou ndax moom jàpp naa dana am fierté ne man sëñ Fallou fa laa jànge te daara laa jànge day am fierté loolu ndax xam na moom xam na la mu bàyyi foofu ndax kër gee mooy kër sëñ Fallou yàlla seere ne ku fa yaroo ba ximbee fa ku la gis dana xam ne yow mii am nga foo jaar kooku mu amul sikki sàkk muy man mii muy keneen ku leen ku leen ne jumaar laa mokkale falaa sëñ Modou Niang mii yor nii ki sëñ bii nii fa ñoo daan ànd dem ci tool yi moom suñu Modou Niang mii borom borom ak kii bi yor kii mi te nii nga gisee nii kat kaadar la jàng na ba ma ko alxuraan dem Mourtani ba jóge fa dem ISIT ba am licence master mi ngi nii soog a nekk fii ko danaa ne bi bi waay te <laughs> waaw leen kon daara moom boo fa jógee daanaka da ngay nekk insaanul kaamil doonte loolu mënta am. Sëñ Fallu moom nag bokki jullit yi moom la sëñ Abdullahi moom lay fàttali ci bi muy ku mat a fàttaliku man damay wax ne ab sëriñ amul lu mu def ci àdduna lu gën jàngale ak yar sëñ Fall dundam gépp laa wax tukki nii tukki génn réew mi musta am benn yoon la ma sa am xaw ma ñaar yoon te booba sëñ Moustapha moom si Abdou Aziz moom lay àndal benn bi Europe la la dem benn bi yes Amérique yaakaar naa sax benn yoon la waaw benn yoon la beneen bi yes mu suñ fàllu benn xanaa mu dem Makka musta génn diggante jumaada ak Touba jumaada ak Touba ndakaaru dana am ay at yi at yi at at suñ du fa jaar da ndakaaru sax la acam loolu acam kooku nag bokk julli di baax na kon ñi doon sikki saak ci suñ wallahi lii may wax nii ñi xam ñëpp xam nañ loolu la demee ku mënoon a yar la ku jàmbaare woon la ku dëgg adduna yi ndax boo ko fekkee mu toog léeg-léeg mu nekk ci penc mi ku xamut boo ko fekkee doo xam ne dund Fallu ngi nii benn maylus bu fuur yi sol boo xam ne boo ko fekk bu ne la kii suñu Fallu doo ko doo ko jàpp na la wanoon ginnaaw àdduna ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala yàlla ko yàlla nangu ab liggéeyam yàlla ko yàlla nangu ab liggéeyam ñi nga xam ne yi bàyyeekoo nañ ca daara te yor te yori daara yàlla na leen yàlla defal barke seen i daara muy suñu Abdoulahi mi ak mbooloo nag mbooloo li suñu Xaadim Njaay si doon wax léegi dana dal suñu Fallu li na wax léegi si Ahmad Sakhir Mbaye dana dal sëñ Fallou sëñ Fallou ñi ña mokkale ca daaraam ja yori daara ay mbooley mbooloo lañ te daara yooyee képp koo xam ne jàngale nga koo fa jàngal mu jàngalaat mu jàngale ko mu jàngalewaat ba adduna di yeex sëñ Fallou payam di ñëw loolu alxuraan rek ko am alxuraan rek te mbooloo la man daara jee ma yor fee rek lu mu gàtt gàtt man fa ma nekk nii juróom-benn yi maa ngi ko topp yàlla seer na ko te mooy fa nekk bokkut ak nag yeneen yi nga xam ne ñoo tasaar ci biir dëkk ba kon imagine ñooñee saa bu xëyee ci mbaaru ma di jàng Abdou Khadir ma leen ya saytu ak seen daare leer na nañ te man daara ji la ci yéew mooy man ña fay jàngale ñëpp ca daara ji lañ moo ko toogaat di jàngale maanaam nga xam ne doo jël bi ab jàmm mooy waaye yi dañuy mokkal nga jàngal leen xam-xam kon continué di jàngale ci biir daara ji nga xam ne moom day mel ne lépp ci biir daara ji la boobu liggéey nag sëñ Fallou moom la ko yàlla defal mu am ko ci njabootam beneen bi ci des mooy sëñ gi suñ kër yi ay sëñ daara lañ ñun bu sëriñ man dama damay jàngale si mi daara la yor sëñ Abdou Khadir mee daara la yor sëñ Sadio mee daara la yor mooy xalifa bi boo xëyee léegi mooy jàngale xam-xam man ñi ma daan jàng xam ñu ci ëpp sëñ Seexuna lañ jànge léegi sëñ ma nga maanaam kër gi daal sëñ Mourtala ma nekk fa sax day jàngale si Italie kër gi amul leneen wax naa ko gan gone yi démb keroog ci jumaa nee naa leen lu leen lu ngeen xalaat lu may nekk ci daara ji xamu leen li ngeen am daara ji ku ci nekk da te tëdd àdduna ak alaxira wallahi azim man musuma ci àdduna musuma def leneen ba nga xamee léegi musuma génn daara te amuma dara dara dara loo xam ne ricc naa ko ci wallahi damay sant yàlla bu baax tey ñaan li si dund gi li suñu xaadim wax laay jeexele suñu xaadim rek si li mu wax léegi ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel bokk julli di téere bi ak sell la lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biir mu des nag yow mi ci nekk noo ci nekk gis nga ko ci nekk ni nga war a nekk sellal ko dara dara te yàlla ak ak man waayam <laughs> sunu borom ak man waayam la ilaha illallah yàlla sunu borom ak man waayam moom kay xanaa li jafe mooy mu def la waay waaye boo nekkee boo xasee ba nekk waayam te ku nekk waayam nag da da ci àdduna lay wane kii sama waay la moom yàlla waaye gis nga bu la fi jëlee bu la fi jëlee ba ba ba nga faatu ci lay ci sa ginnaaw ñi fi bàyyi dana wan dana leen kii sama waay la loolu mooy dal ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo ñu dal ci moo nag mboolem ku ngeen fi dégg ñu naan def na fi ci lislam kenn du ko fàtte yàlla wane kii sama waay la rek waaye yàlla kenn du ko fàtte ci àdduna ak alaxira kon mbokk jullit yi nañ góorgóorluwaat nekkaat ci daara ji tey tey jonjoo ah Cheikh Hadi fofu la jeexal man fofu la jex nañu joñ nañu dem ci mbaar li am solo man fi ñuy wax ni xalx la yor fan yee ci ginnaaw diggante bi ma demee màkk diggante boobu damaa ñi ma yoroon dama leen séddale am ci ngor soo xam te ni daa dem ci waaj na ko si njir léegi moom tut maa ko daan jàng mo ne si njir léegi tut barki déma nak nga nak jàngalee tut bismillah kaay fii sama xadi la diko ko jàngal sama man ko ah, ngeen jàngalee tut pour wan ne leen booy yàkkamte ne yow nga kenn bañ am liberté kon ñun gis nga man nek gama nek ci daar suma yottal yóbbu sax nek gama nek ci biir mbam rek am lu mu fay jëri suñ daara bu ne maanaam sa bo amé ci biir daara ji aw sees bo xamné jang la yaangi tok kep toog yow sax yaa li ngay def xamoko ko sa bo génné génnee rek ah lu suñ daara jambar jambar booy nee ah suñ jil génn pour ñom amna lu manki daal kon ñu bàyyi xel loolu baax ñi ngi yégul ci guddal gi ramel wax ci jege di sante bu baax suñu Abdoulaye di lay ñaanal yalla yalla sàmm leen te dëgëral len daara ji yàlla ci yàlla def barke mu bokk ci daara yi gën a barke ci lislaam fan ci bëgg ak yàlla sunu ba àggale ko yéen waa dëkk bi ni ko ni ko waxee ngeen jàpp ci daara ji daara ji yéen ko moom fii boo doon xool suñu Ablaye yaakaar naa bëriwu ci njaboot waaye fii ñëpp waa dëkk bi yéen yéen a moom daara ji bu daara ji jëmee kanam bu ko gone yee mokkal alxuraan fii la ñuy ñibbisi gone yi bu ñu amee diine fii la ñuy dëkk te boobaa yéen yéen seen i waajur kon nit kenn ko boo sañoon sa doom gën la kenn ko boo sañoon sa doom raw la noonu la kay te alxuraan mii kat ku ko am ku moom gisatoo ginnaaw mukk dootoo des ginnaaw ci àdduna ak alaxira kon nañ jàngal gone te yar leen te bañ leen ne yàkkam te bàyyi leen sëñ Ablaye ba mu nopp ci ñoom ñi ñaan yàlla yàlla na suñu borom sàmm ñëpp ñi ngi jégul ñëpp ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum sëñ sëñ Mambal la am naa lii ci kàddu sëñ Abdou Khadir gi la du sama kàddu ngir daara ji waaye ci kàddu parrain bi lay jóg sëñ Abdou Khadir da am lu doon ko mm. sëñ Fallou li ma yéemoon ci ay bokk na ci sëñ Salif mi rakam la sëñ Abdou Khadir mi rakam la sëñ Moustapha mi domam la man bam bam ma fay yobou dégg ma wolof waaye sëñ Fallu bokon na ci daara amul dom amul jàmbur képp ku dem ca kees ga mo a mu xeli ci loxom kaasu dafa nan ko naan ci condition nga mo mokkal alquran ku la raw ci alquran ji dal ya ko gën a sës maag sëñ mi ñoo bokkoon benn neeg bo xana bo ci jatt bi dalay bu weer wi génne dalay waaye bokkoon na ci mën a yore sëñ fallu ci la lu ma marqué mooy sëñ fallu mu woo la wax yow mu dóor a moo ko gënal bi ma wàccee alxuraan dama dax ah, man ab séeréer laa jëru may mokkal alxuraan mu woo ma minuit la ma woo minuit wala onze heures ci guddi ba daanaka deux heures du matin ci wax la nga xam ne mujjoon na yow dooy gis sëñ fallu la ngay daw ngir lan yi day mel ni kàddu yi da lay jam bokkoon na ci mën a yare seigne fallo man def naa ci mom fukki at ak juróom-ñaar ba may fay dem 88 la fa jogi dem fin 87 la fa 88 dal la fa jëm ba 2004 la fa jóge ba ma fay dem xelagu ndaw la keroog bi ma bi jabar la fa jóge moma jox ak cyan guma yobbu sama soxna tok japp na ne seigne fallo ñaari yoon la ma mësa door te ñaari ñaari door yi nañ ko deglo ci benn bu mu jóge benn bi dem soirée la woon <laughs> loolu moom daaw ci masla be dem soirée la woon ñu dem soirée benn yoon benn yoon bi moom danoon dóor mbooloo rek ñu boole ci moo tax damay wax ne man bokk naa ci gën a ragal yar imagine nit fukki at ak juróom-ñaar te fa fàttaliku ñaar yoon la la mos a dóor kon ku ne xam ne ku mënoon a yar la ku mënoon a yar la waaye amoon ci laabir lool yàlla xam na ne man suñ fal ni ma marqué nag doomu a marqué wu ma ko kon ñu koy ñaanal yal na ko yalla dok ak yërmande ak njéggalam di ñaan si Abdou Khadir mi dama ne suñ fi doy na doy doy na sëkk sëkk sëkk wallaahi bu fi bàyyi woon kenn ku dul sëñ Abdou Khadir kese doy na sëkk ab liggéey waaye sëñ Abdou Khadir ngeen ne sëñ Saalih ne sëñ Aboo nga ne sëñ Alhaaji Juufa nga fële sëñ Seexuna Ñang mi ci la bokk sëñ sëñ Moodu Ñang mi ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen te yàlla xam na ne sëñ Fallu méthode am day wax nañ ko waroon di jàngale ci ci ñi ñi gën ci école yi ñuy ñuy wax pédagogie sëñ Fallu dafa mos a bis benn uh, ab football dina am saram ñu ruus benn joueur bu ci amoon solo mu wow ñu doon leen jàngal mu ne le mu ne waa lan moo tax kii ñu ruus ko mu génn mu ngi doon waxtaan ci gone yi nangu ndigal ak nangoo topp ndigal mu ne pourtant moo ñu sa ñu cee teg ab baat kon ñun ñëpp nañ nañ ma ko ñaanal yàlla na ko yàlla dool dolli njéggal ak yërmande yàlla xam na ne ku ma doon a yar la sëñ Fallu mu sa togg ci këram ñaari cin yàlla xam na ne sëñ li ñu daan añe moom ci la daan li ñu daan reere ci la daan re yalla xam na ne dem na di magali Touba tak ñu takal ko sareetu mbam ñun ñu yóbbu te kër ga kër ga kër ga eh, mu tak sareetu mbam dem di magali, ñun ñu jël faso dem tol, kon koku mo nona yar la. ak njabotam yi ñepp mo leen yar señu saa ngi ni ñun ñepp fa la ñu yor te mosoo cee xam kenn nan dal fi ku fi ma da ñew ci caisse gi ñew fi di nan si café wala nga bok ci cour de grand xamale mokal nga alquran waxon na ne ku fi mokal alquran bala nga jógee da ngay jangal say morom na fi amul fay man jàng naa alquran ba mokkal ko musuma gis samay waajur jàng naa alquran ba mokkal ko samay waajur mujjoon naa leen gis fin 87 ba 2001 laa leen gisaat te mus musta feeñ ci sama nekkin musta feeñ ci sama nekkin kon kooku yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla njóogu yéen maa ngi yërëm dama la seede ci moom rek ndax sëñ bi waxal fa salaamaaleykum wa rahmatullah xam naa est-ce que Ablaye xam naa kon dañuy julli ñu àgg rek incha allah dañuy julli. incha allah àgg rek. maam Balla wax dañuy julli. ñëw àggale def yëf yi. nga yëg ak chef yi. incha allah.